mbokk yi dal leen ak jàmm fukk ak ñetti doomi Sénégal ñàkkati nañu seen bakkan si biir ndox mi maanaam mbëkk mi ginnaaw bi nga xam ne doon la ñu wutali foofu ci diwaanu Espagne l'observateur xëy di nettali jiyee jooju nga xam ne moo xewee foofu ci diwaanu waaxi Mauritanie naan fukki sénégalais ak ñett dañoo lapp ginnaaw bi nga xam ne bato ba ñu duggoon wutali diwaanu Espagne dafa mujjee suux juróom fukk ak juróom-ñett yi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan si boobalee baatu nag mujj nañ leen suul si diwaanu Mauritanie libération xëy di ko gën a yaatal naan juróom fukk ak juróom-ñetti doomi aadama ñoo ñàkk seen bakkan si diwaanu waaxi Mauritanie mu ngi naan nag île bu Saloum ñoo si gën a ñàkk seen i doom fii si réewum Sénégal ndaxte li ëpp si ñi nga xam ne ñoo si loru nga xam ne génn nañu toll si 200000 ba 500000 su suñuy koppar ngir wutali foofu si diwaanu Espagne ñu ngi jugee woon si diggante Thialane ak fi nga xam ne moo di Bassar foofu si diwaanu île du Saloum yéene boobulee bateau nag ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru novembre bi ñu génn foofu ci diwaanu Bara réewum Gambie la ñu jugee woon wutali Espagne yéeni kaay bi di firndeel naan xibaar ñu ngi wax ne juróom benn ci juróom ñaar fukk ak ñett yi nga xamante ni bii ñoo mucc it ñoom it doomi Sénégal lañ maanaam doomi Sénégal yi fukk ak ñett lañ ci gis ñu faatu juróom benn ñoo ci mucc loolee lépp xewee ci biir ndox mi ndox mu ñuy naan daanaka doom bu góor la fii ci réewum Sénégal jafe na lool jamono ji rawatina fii ci diwaanu Ndakaaru li ko waral nag banque yoxo gi nga xamante ni bi liggéeykatu SDE yi ñu ngi ko banque yoxo ne duñ fas xànc ak morom gi fekk amuñu li ñuy sàkk si nguurug Sénégal mel ni nag nguurug Sénégal ci boppam ñu ngay bras fer ak ñoom buñ sukkandikoo si yéene gaay bi nga xam ne moo di la turbine tax ñu bëri nekk si toltalaan di rootaan yi ngir mën a am ndox mu ñu naan wala mu ñu jëfandikoo las yéene gaay naan jafe-jafe yi li ko gën a yokk dëgg nag moo di xëccoo goo am si diggante SONES ak SDE maanaam ku nekk bëgg am aw laaj woo xam ne moom ngay am si séddaleem ndox mi di pour cent yi nga xam ne moom la ngóor gi proposé waa SDE d'accord nañ ci waaye dañoo bëgg ñoom képp ñoo ko yor nguur gi nag jàpp ne dañ ko war a séddoo SONES ak waa ONAS loolee nag liggéeykatu SDE yi ba léegi nangooguñ ko waral ndox mi baawaanul fii si Ndakaaru li baawaan nga nar a dakk nag moo di garab yi nga xam ne moom la ñu jëfandikoo ci pharmacie nationale d'approvisionnement bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi nga xam ne moo di enquête ñoom bu ñu moytu dinañu am ab boo xam ne dina jëm si yooyu lay garab ñuy jëfandikoo docteur Fallou Samb si biir yéenekaay bi mu ngi naan pharmacie nationale d'approvisionnement mu ngi si gudd yu bët setagul te bu ñu sàgganul dina indi ay jéyee fii si biir réew mi mu nga ñaan nag ñëpp jàpp si ndaxte suñu njariñ la ñun ñëpp mu ngay sàkku it ñu amal ab audit si ni nga xam ne noonu la ñuy séddale ni nga xam ne moo di médicaments yi si mbooleem bërëbu fajukaay yi laas yéenekaay moom del si ak xew-xew jamono boo xam ne moom lay xëy di nettali bi nga xamante ni bi tribunal bu Ndakaaru nañ ko niki démb mu ngi naan El Hadj Ngingue mii dafa dóor dóor yi métti ki nga xam ne moo di soxnaam sa mujjee sax matt leex ba ak ndigg ginnaaw ga te dara warul ko lu dul moom mi da doon nelaw doom jay jooy jooyam doon jooy nag tax mu yeewu mu mer ba futtu jàpp soxna sa dóor ba fóoti sagaram ndax ne doom ja da koo yee tax mu mere jabar ja Macky Sall mere na lool ki nga xam ne moo di Moustapha Cissé Lo du samay kàddu la turbine ne xëyee ne ki nga xam te ni bi mooy premier vice président bu assemblée nationale ak kàddu yu ñagas yi nga xam te ni bi jamono ji mu ngi koy yëkkati mer na na lool ki nga xam ne moo di Macky Sall naan lakkal na ma lool di waxit naan am na loo xam ne ñu ngi koy naal di ko nësër bu moytuwul dina dal si ki nga xam ni responsable la foofu si diwaan APR ñaan am na ñuy munumtu naan moom mii sax dañ ko war a génnee si bile ki nga xam ne moom la ñu war a génn si kaso ba mu nekk moo di professeur Babacar Diop ay naataangoom jàngalekatam ñoo ni àttoo si biir las yéene kay mu ngi naa ñu professeur yu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru toll nañ ci ñaar fukk ak ñaar yoo xam ne signé nañu pétition ngir seen naataango boobu ñu génne ko si kaso bi nga xam ne ñoom la ñu jàppandoo ak moom si fàttali moom Babacar Diop mu ngi bokkoon si manifestation boobu nga xam ne si li ñu tege woon Guy Marius Sagna loxo foofu si diwaanu Palais moom professeur Babacar Diop jamono ji nag mu ngi nekk si infirmerie yi ginnaaw bi nga xam ne xiifal bi muy amal loofal na ko lool ñeneen ñu mu nekkal si diwaanu kaso ñaari doomi aadama actuellement l'observateur xëy na fësal seen kanam naan yii ñooy kanam yi nga xam ne daanaka ñooy fippu ba jamono ji ñu ngi sa kaso ba mu ngi naan Guy Marius nag fañ ko yóbbu si biir kaso bu rëbës la jagleel ñi nga xam ne ñoom la ñu toppee mbirum terrorisme jeexal ak Walf Quotidien ak kaddu yi professeur Mamadou Fall si université Cheikh Anta bu Ndakaaru kaddu yi nag boo moytu du neex ku mel ni Assane Top ndaxte mu ngi naan nañu moytu bu baax a baax cuuraay yi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo si biir néeg yi jamono ji nga xam ne waxtu sedd la soxna yi di ko jëfandikoo bu baax a baax muy mel ni nag yaatu na lool waaye pour fu seet di àddunaan ah nañu maytu ndaxte yële cuuraay boo moytuut mën naa faat ndaxte xër gi muy xër ak toxique gi muy génne baaxul ci wér-gu-yaram muy mel ni soxna amee Aminata Ndong soxna yi war na ñoo wàññi seen loxo jërë ngeen jëf mbokk yi dëgg daje ba ëllëg incha allah